Wow, Baba Amdi, euh, c'est c'est un jeune sénégalais bu il évolue dans la musique euh, waaw loolu là, mën wax quoi hein. évoluer la musique que euh, musicien instrumentiste producteur en même temps et comment mooy Baba dit?

à caserne euh, pompier mm. mal après euh, nous affecté ko mu dem caserne bu mm. hein. ah ma enfance ma ma ma passé économique. Mm. donc euh, ma am yar vraiment ma koy delloo sama parents parce que son papa était officier et vraiment tout ce qui l'intéressait dans la vie c'est de faire des recherches c'est de travailler le Coran c'était euh, la relation humaine. Hein. Et pour moi, ça c'est important. Et surtout le travail. Hein. Donc, je euh, suis ma nekk euh, di ci dox bataille. Baba c'est école ma ma ma ma ma ma ma école Je sama papa non non non je n'ai jamais été tard

après ngay perturbé euh, après ngay perturbé kooku mooy euh, loolu mooy suma enfance fofu, après nak boo delluwaatee ci sa euh bala may wax ci lolou après euh, ma jangé aussi Saldia école Saldia bi nga xam ñep ñëpp xam nañ ko vraiment et nak bi may jangé Saldia je a fait xeyna lolou motax ma tambal di bindal artiste yi may may may def ma tàmbal di bind ay citation ay poème et 6 sixième secondaire la doon def et une fois benn waay bu ñuy woowee Maodo Gadio mu dëkk euh, Liberté mom la ko daan won su ma ko wanee daf may ne mais kan mo bind li mané ko man mu ne ma kenn la mané ko non mu ne ma mais fi dafa am faute fi dafa am faute fi dafa am faute ce qui était très normal après mu corrigé ma faute yi ma koy indil di ko indi ba ben moment mom muy def terminal lycée Blaise Diagne il était étonné mu won ko un prof philo quoi sen prof philo ne ko mais bu dee ki bind li nga ay.

parce que sama papa pour moi, c'était important Hein? vraiment euh, ne ma avant ma bi mou yëgee ma, maa ngi forantu ci musique daf ma ne man chez moi je ne voudrais pas d'un musicien bo xamné il est pas instruit mu ne ma te man bugguma sama dom di nek tout le temps ci ginnaw après mu ne ma xanaa gisoo sa ay grade papa du ma fàtte ma ko waaw mu ma non non non est-ce que gis nga grade est-ce que xam nga li moy lan ma ne ko waaw euh, mu ne ma waxuma waaw de est-ce que xam nga lii mooy lan ma ne ko waaw xam naa lii mooy lan lii lii yow yaay chef yow yaay chef ci camp bi quoi am nga affaire yooyu mu ne ma waaw man nag je ne voudrais pas que mon fils vraiment di nekk ci ginnaaw et je souhaite nga jàng comme Baaba Maal loolu la ma wax loolu la ma wax du ma ko fàttee. après décès bi nan nga ko dundee waaw après décès bi euh, comme toute personne c'est des regrets moi li ma wax qui et c'est des apprentissages yo xam ne da ngay mhm. euh, té da ngay wax ne bu bu doon sama sama sago mu féké li mu féké li mu féké li mhm. parce qu'il voyait il me disait il me mhm. disait car machallah baba euh, tu sais sa sa yaay dafa fa nek jigen bo xamné ne daf ma déggaloon trop trop trop après mu may nettali affaire quoi tu peux même devenir président ci euh, tu peux tout avoir dans la vie euh, parce que euh, et je sais que tu es très intelligent tu peux réussir dans la vie mais tu nga faire tout. tu vois et bon ces choses m'ont m'ont marqué est-ce y a encore des mots de yaay parce que est, un tamit de colère. est ce que xel ci non man man côté boobu man du lek lekk sama yaay lekkul du ma tëdd te xaw ma ci lu lek nek nekk loolu moom defe naa Sénégal yëpp xam nañ ci dara damay gis nit yi di def ay interview di wax ci seen yaay euh, man su ma doon wax ci sama yaay fii ba l'an 2000 euh, fi ba 100 ans du ma fi jógee sama yaay daf ma jege torop torop torop torop torop lo mana a dom doom bu yaay. Mm. Mm, gisuma ko ko ko gëna jégué jege yaay man euh, man duma tek sama tank fi may liggé wala dem fenn te gisuma sama yaay pa pour wax ko ñaanal ma de juste pour gis ko bu gis ma euh suma yéwo limay ñëk a def téléphone ay ah, yaay agn nga est ce que nangam nangam donc on on peut pas dire Euh, je ne vais pas dire yi nga xamné mang koy def ci sama yaay parce que du du lo xamné <laughs> ki la numu mu euh nan lañ koy waxe sax en fait c'est c'est devoir la bu may ñaanal dama ko naan yaay man damay daw dama ko naan yaay bayal dima ñaanal quoi parce que yow liñ may wax ni dama ko wara def mu ne non mais yow euh, ainsi de suite ainsi de suite quoi tu vois et ce qui était remarquable chez mon père moi daf ma doon wax baaba balaa nga may defal dara defaral sa yaay balaa nga may defaral ñaar defaral sa yaay fukk man bëgguma dara ne fait rien pour moi c'est tout pour ta maman et man souvenir yi ma yi ma gën a am ak sama yaay moom mooy bi may nekk xale su ma su ma àndee ak moom su ma rombee jaay orange dama koy wax yaay Euh, dama bëgg orange quoi mu jënd ma orange après dama koy bëgg a testé xam nga xale rek après ma ne ko yaay dama bëgg màdd quoi xam nga mu jënd ma màdd après ñuy demaat ba ci kanam man ko du bëgg gerte ma mère ne m'a jamais dit non sur le Saint Coran musuma wax ba may xale ba léegi sama yaay musuma ko ne woon yaay lii mu ne ma non non non déedéet aw ma wala mu énervé loolu musul am moo tax moom ce qui euh, moom pour moom Euh, pour moi euh, parce que macler parce que pour moi euh, je connais tous les présidents du monde hein, c'est-à-dire je peux prendre mon téléphone et communiquer avec ces personnes donc mon bu yéegee par exemple benn ministre ñëw na fii wala dara daf ma naan mais le tax wane looloo mag Fanny fan yi gars dañ télé et eh, pourtant kii xaritu Baba, la Aliou c'est entraîneur bi mu ne ah mais le tax le xam nga rek mu ne mais yaay ñii ñëpp samay xarit lañ xam nga et ah wa mais ki ki dama ko bëgg xam nga nak kenn moy xaritam Balde le ministre Balde ancien ministre Balde quoi et pour te dire que les lu mu bëgg ci une fois dañuy nous fenn man nit daf ma neex trop mané ko kan Balde mané Balde après xarit ci ñu Balde et euh, le lendemain Balde daal di ñëw fekk sama yaay nekk fi daf ko bëggoon defal surprise sama yaay nekk fi Balde ñew ma wo sama yaay nekk wa waa gaawal gaaw da nga am ben gan fi quoi mu ñew gis Balde contane et Balde may ko xaalis sama xarit bi may ko et tout ça donc ça c'est des choses yo xamne dama ci contane mm-hmm. euh yo xamne mom gis na domam diko accomplir tout le temps parce que parce que nak man fi ma jógee dafa xaw sori un peu quoi j'étais juste ce ce musicien Hein, c'est cet instrumentiste qui euh, donc il euh, koy faral di quoi que moi je ne suis pas le fils de Double je ne suis pas le fils de John, ni le frère de Youssou euh, ainsi de suite ainsi de suite je suis cet homme qui est venu de très très loin à mm. une hein, famille pour la former forger parce que Sénégal de dëgërul fille ah dof que na ci. groupe nga nga nga je joué ah, ah, hmm. ah, ci groupe yu groupe joué groupe ci un groupe yu groupe yu groupe yu ndaw yi dinañ la un <laughs> non groupe yu groupe j'ai joué avec tout le monde mais euh, je da nga bokkoon ci orchestre. wa ci orchestre bi ban orchestre nga bokkoon. bokkoon ci orchestre Kumba Gawlo. Mhm. après euh, ma joué action sec mhm. je n'ai action et action j'ai appris beaucoup de choses énormément de choses pourquoi parce que john n'était pas un musicien facile. Mhm. kon baaba bokkoon na Ramadaan. bokkoon na Ramadaan kay. xam nga et il m'appelait génie. génie la ma dan donc. Euh, il m'a appris énormément de choses parce que chez Chon, il fallait avoir énormément de rythme pour jouer à Chon parce que moom ram way musique et moment je man pas très très mûr musicalement tu vois et j'apprenais ma dama dama nan muy def je xol muy def ma je nak parce que man dama nangoon di teju après ma tëju suma ñëré mu boy li faut ko jàngee <laughs> comprendre nga donc euh, suñu nekkaan répétition aussi suñu euh, suñu jouer ben affaire ba am ci yenn ci yenn problème yi rek après mu tourner mu né ah laaj len génie xam nga donc j'étais le plus jeune xam nga euh, après ma ànd ak mom moom ma njëkk dëkk bi coon My suis fii France et je n'avais même pas l'âge de voyager seul c'est-à-dire plutôt sans autorisation parentale donc te moment moins de 18 ans mhm. donc donc donc moment euh, après je suis may quoi <laughs> c'était genre euh, non baba encore avec ses bêtises quoi tu vois après ñu dem police mm. ah bon mu ne ma yow mais yow kan moo <laughs> non <laughs> ku lay yóbbu <laughs> waaw non c'est-à-dire c'était du genre Euh, mais yow kan moo gëm li ngay joué. ba di la yóbbu quoi toi tu connais la famille sénégalaise quoi. Uh-huh. xam nga après ma reetaan rek quoi après ma ne sama xel ndeysaan ñoom xamuñu quoi. Uh-huh. tu vois après mu defaral ma autorisation parentale bi et c'est je, je disais Thione m'a appris énormément de choses euh, il m'a permis de voyager uh-huh. et il m'a il m'a il m'a beaucoup aidé et il m'a il m'a beaucoup pardonné aussi ah beaucoup de choses que j'ai fait je xam defnako def naa ko et il m'a pardonné et moi tax nini j'ai j'ai de bons rapports avec moi d'excellents rapports man damay faral di wax ne buguma buguma am ak kenn problème problème nag du ñàkk ci àdduna. beaucoup de choses yi ngay wax qu'il t'a pardonné c'est dans le cadre du travail ci cadre liggéey bi la. oui c'est dans le cadre du travail c'est dans le cadre du travail c'est lépp le quoi c'est-à-dire que moom moom moom xam na parce que suma suma suma mag la sama papa tu vois euh, parce que moom nag Rakam, rakkam moo dans denc sama mag. Rama moo doon seeg Rama. Rama moo jur Bambali Seck bi ñuy wax ni tu vois donc euh, après lien de parenté tout de suite dafay commencé dugg donc que nous, nous mu deux Mapende mm-hmm. Ousmane Keba ils m'ont vu grandir évoluer dans la musique ñu mm-hmm. m'a vu grandir évoluer dans la musique euh, ont Moumi et tout le monde donc c'était la même famille tu vois Dougon, bi génn moi mooy dafay amul quoi forcément après loolu on nga voyager wa moom laay wax c'est-à-dire que après loolu dama voyagé euh, dem États-Unis tu vois Tokfa, fa xam nga gënaat gëstu gënaat euh, jàng. da nga demoon gëstu wala da nga demoon immigré. Euh, dama demoon immigré dama demoon immigré et j'en ai profité pour apprendre ah comme li ñuy wax rek bu jaree nga dem ba Chine da ngay dem ba Chine dama demoon immigré pour pour jàng dama demoon immigré pour ut xam-xam pour ut xaalis mm-hmm. et j'ai fait Dieu m'a beaucoup aidé. Euh, je ne me plains pas beaucoup parce que euh, teranga boo xam ne yàlla jox na ko war jox doomu aadama teranga je ne parle pas ci côté am am kese quoi mais sur tous les plans ah sunu borom teralé na ma ci bép bo gisuma ci bor bo xamné teraluma ci quoi. ci milieu bi baba buñ ñu doon wax artiste bo ci gënal amal affinité kan ngay kan ngay lim ko xamné sa la. waaw ah, xarit xarit ci yi dina ça va être un peu compliqué Nder laay gën a wax quoi Aline Mbaye Nder parce que Alioune Mbaye Nder euh, dafa am lu bëri loo xam ne dañ ko dund ensemble oh, sama grand frère la euh, ma fait ko ci musique bi mais bi ma man tout de suite daf ma euh, après man li bindal Nder ak Viviane mo ëpp ci artistes yu mag yi nga xam Sénégal ndeer album boo dégg rek wala doo du tëgg mu concert te du ci way quatre morceaux wala cinq yoo xam ne man binduma ko quoi tu vois peut-être nit ñi duñ duñ ko xam mais xam nga maa koy bind et mooma yooyu may bind moom day day am courage wu taxaw sur scène daal daal di ne morceau bii de mardi bee passé dama dem gis yu man du may faral di génn lu bëri quoi mu ngi way jekki jekki seen ma mais ndeer mel ne soirée bi man rek maa fa nekk ba bambali suma euh, suma suma niveau bi ne ma mais tons ndeer xanaa dafa ne yow rek nekk ci soirée bi <laughs> ma nekk non mu way sant yàlla mu way sant yàlla après mu bi mu jeexee mu ne morceau bi ngeen di tëb di dal kii toog moo ko bind baaba am di moo ko bind moo def air yi moo ko way woo ma ne ma kaay musique baa ngi nii way ko mu donc tàccul leen ainsi de suite ainsi de suite xamuñu loolu on a que ça je vais pas dire loolu rek mais loolu dafa ci parce que quand tu es auteur compositeur tu donnes naissance mhm. et quand tu donnes naissance nga nga dénkaane ko ñu ñu ñu ñu ñu ko wala wala wala euh, wala du

tu sais man les interviews j'aime le faire ci sama vie euh, professionnelle mhm. mais sama vie privée non sama vie privée sama vie privée là quoi non nekkatul privé loolu domaine public la du moment que domaine public waaw presse bi yëpp ñu ngi ko doon wax xam nga mhm. ak nu mënti men topp la di bind si Baba di bind si Viviane alors du coup mënuñu jàkkaarloog yow question boobu ñëpp di ko demandé li tax nit ñi doon wax loolu te duñ la ko laaj waaw mais question boobu nit ñi musuma toog mhm tontu ci kenn duma baye ba tay la kat lan. mais non oh. waxuñu waxuñu nga toon mais dama bëgg xam au fait parce mm. que ça veut pas dire Viviane yàgg na def ay collaboration mm. mais ak Baba. non man ak non ak Baba kuma ma mënti collaborer mm-hmm. fay compliqué day coow day bëri non la mel. tu vois mais est-ce que dañ leen daan gis ngeen di and tout temps dañu daan gis ñu and c'est normal. kon mariage bi amoon. Euh, yow bu fekkee da nga foog ne yaa gën a yam yaa yaa gën wala ya gëna yew nit ñi dina lèr yow mi nga xamné da nga way yow yow nga liggéey ak ma nek sama assistante fi nga jékki-jékki tok fi né né ma nii ma nii. eh yow eh ma. <laughs> non baba c'est oui ou non. kon ma euh, euh, je vais pas nee naa la nee naa la man bugguma di avancer ci sama vie privée. mais mais et li tax bugguma di avancer sama vie privée. Mm-hmm. j'ai mes raisons ces raisons bugguma ko break ba tey ba tey dugguma ba dama la ne rek liñu étaler ci média bi mënuma jàkkaarloo yow te duma la ko laaj ba la djuma la détail yi yenn truc. yi en général liñu wax en général loolu rek la la laaj motax tax ma la kon c'est oui ou non mais c'est simple non on sait pas marié parce que tamit dañ ne qui ne dit rien consent. est-ce que mën nañ jàll ci beneen question. <laughs> Baba dégg nañ la sa son bu bees bi yow ak Abiba kan nga woy ci sa son wi sama jabar laa waay. Mhm j'ai prouvé euh, le besoin de le faire parce que tout simplement ce studio de de de il faut me tu vois et pour moi ça c'est important. Mm-hmm. Euh, parce que quand tu le la dom euh, chaque jour tu tu vois. Mm-hmm. Eh, kenn bugg ko sëru kenn bugg ko subir doomu kenn bugg ko subir eh, donc eh, mm, tey jii pour man mu jot la rek ma def ko quoi c'est-à-dire xam nga xam nga way feeling la quoi looy yëg la donc comme je disais à l'entame am na yoo xam ne da nga koy gis nit ki di ko dund am yoo xam ne léeg-léeg yow yaa koy dund personnellement et je disais dans la chanson da nga mel ni yaay ci man euh, titre chanson bi lan la. Aya la tudd. Aya la tudd. Mhm. gis nañ ni Abiba mo def kër yi. Mhm. gis nañ Abiba daf melni bi moy sen deuxième euh, collaboration. waaw parce que bi nak vraiment pratiquement euh, man rek man ma defone affaire yi et mom fekk ne maa ngi koy enregistrer benen morceau Abiba bi mu dugg see fekk may def morceau bi xam nga mu ne waaw affaire bi nice na ma ne ko ok dugal nga nga def nga aw fi mu aw affaire bi nice et on s'est dit waaw pourquoi pas noonu lañu noonu lañ ko defee comprendre nga et savoir vraiment accrocher savoir passer et c'est cette voix que je cherchais parce que man sama baat dafa xuur dafa diis xam nga donc euh, ak euh, j'ai dit bon ça, tout le monde avait remarqué que ça a passé très très bien. Mm -hmm. après ñu ñu ne bon finalement au lieu muy nekk aw parce que aw beaucoup koy déglu day nekk ci souffres, mais bii dañu bàyyi aw yi nekk ci kaw un peu quoi tu vois et euh, après ñu tijjil ko ben, ay quelques parties mhm. mu mu posé voix quoi mhm. donc euh, musicalement xam musique non la quoi fait de yëg-yëg la mom tam mu yek ko torop torop torop xam nga et après on l'a fait. mais Baba sa jabar tudul Aya de. sama jabar moy Aya. Aya la tudd. Euh, sama jabar moy Aya ñep Aya lañ mhm. ko xamé ñep Aya lañ ko xamé bi mu ko yëgee naka la démé naka la ko yëgee woy bi. dama ko défar ba mu paré euh mané ko est-ce que est-ce que déglu nga li mu ne ma non non matagal ko ko elle était très contente hein Euh, comme toute femme ah soo leen soo len defalee lu leen neex euh, dañuy kontaan donc euh, mënuma wax que ne dafa doon teub di dal mais bon elle était elle était émue quand tu es, quand tu es ému parfois tu ne tu n'agis pas trop ah affaire da lay bett olof lu la bett mën la donc donc daf ko bet peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ça lu ci mel ni seen petit gàlle daan leen la si gis mais gisatuñ la lu waral loolu c'est normal mm, euh, seen petit dafa nekk loo xam ne euh, suma doom la suma doom moom mooy bokk naa ci ñi nga xam ne dañu ko euh, tàmbale ak ñoom ngóone ak ibu mais ñu dem ba jamono man sama jot maytuma loolu ma xool date bu njëkk bi mm-hmm. benn samdi boobu doon na ma fekk Dakar mm-hmm. mais yeneen ñaari samedi Gabon la ma doon fekk. Mhm. xam nga mané bon dem di ñew dina compliqué et un ami m'a dit boko ko les gens vont penser que c'est à cause de l'histoire ak euh, ak Viviane mhm. motax defoko mané ko ma waaw mais nit ni. mëno leen di leen déglu ba doo liggéey mhm. comme dañu am contrat Gabon ak Viviane waaw ak ak Viviane il faut ma def ko comme dama am ben date je pense dama amone benen date euh, sali ma ko il faut ma def ko. te te date yooyu vendredi samedi la won mënu ma ko woon def xam nga après lima don éviter moy tay nek fi tok ñaari samedi du fi fii te loolu sax ñom góone duñ ko nangu quoi. kon du won affaire ak Viviane bi la. non rien à voir xam nga tombé olof olof olof nee tombé waral ay gaf loolu rek la. Mhm. et nit ñaan na ñaan na euh, dem ba do amati jot tous les tous les tous les tous les xaw ma ndax comprendre nga li expliqué comprendre naa comprendre naa mais lan moo tax mhm. yeneen saison yi gisuñu la comme bii nii C'est ce que j'ai dit. Mhm. Après, ça euh, dit, il faut comprendre une chose que Baba, musicien là, mhm. buy composer pour boppam buy composer ñeneen boo xam ne dafay utal sponsor boppam lay utal sponsor ñeneen dafay dafay dafay essayer defar communication comme comme ni mu koy les ñeneen donc chaque fois maa ngi mag nit day mag ci àdduna euh, te booy mag sa jot day néew comprendre nga et loolu moom moo donc saison boobu bi ma ko tout de suite après euh, pour nga nekkaat fa day jafé quoi xam nga damay am kersay sax euh légui ni man bu may wax ak ngoone sax damay am kersa ci yenn affaire yi quoi